Ah? waaw jigéen la ah, léegi bu ñu ñu woon parité mhm. ñu ni ok jigéen moo ko jiite force góor da ciy toppaat door jigéen door a ñëwaat. pourquoi pas. pourquoi pas et et pour non warul demee noonu. on est une force boo xam ne moom mun na ko jiite nekk jigéen. ki topp ci moom am capacité nekk jigéen ka ci toppaat am capacité nekk jigéen. wala mm-hmm. problème. waaw mais xam nga wañ euh, wàññi ci benn lay doore. Mm-hmm. tant que ñun rattrapé wu ñu retard bi ñu am. Mm-hmm. déjà nañ ko rattrapé après on verra mais. tant que ñu ngi dem ba di am équité cinquante pour cent cinquante cent ça ne nous dérange pas du tout mm-hmm. parce que xam nañu force mais fa ñu jëm nag mooy comme dans l'éducation pratiquement actuellement ñun ñi di di di am souci wu équilibre genre dans l'éducation on est en train de nous soucier des garçons parce que abandon yaa ngi bëgg bare jigéen ñi léegi jigéen ñi ñoo ëpp ci e-, éducation bi ko góor ñi donc on est en train de voir des stratégies pour ramener les garçons mais ça veut pas dire ñoo leen dàq c'est d'autres facteurs exogènes mmh. qui ont contribué à ce que les garçons abandonnent dem di nekk ay Jakartaman ak ay yeneen mm. parce que c'est un phénomène qui est tout nouveau mmh. mais on essaiera d'y pallier mais li wóor ba wóor mooy bu ñu amoon équilibre demoon sax ba ci équilibre boobu euh, entre les hommes et les femmes di ngeen gis une autre gestion mm.